السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سما شبي ما لين نيو دين جار دلين دلال شان شان يوتيوب بين خامني ين ينكم موم ين يبكم موم دي في داجي دي سيدو خام خام بو خامني دي جارين كم نما لين كي فرال دي وخي رك فين في لب لين في دف رك ñun li ñu si jublu mooy lu jëriñ doomi aadama yi ñii danañ ko gisee nii ñii gisee ko neneen waaye du tee ñun suñu objectif ba tey danañ ko def mooy baaxee leen xam-xam bu ndaw bi nga xam ne yàlla jox nañu ko comme ni ma leen ko waxee rek comme ni ma ko defee yéen noonu ngeen koy defee ku si am dara loo xam ne lu mën a jëriñ nit la rek mën na ko séddoo ak ñun ñu ñëw indi ko fii pour ñëpp séddoo ko te comme ni mu leen wax rek man wotewu ma ab sëriñ ne ko ma sëriñ dégg nga maa ngi si yeneen loo xam ne maa ngi si kon lii daf ma ko am métier ku taxaw bay wax loolu nag kon kooku woowul kenn dañuy dimbalante rek am na si ñoo xam ne eh, dañoo dem ba fu mu nekk ni gëmatuñ sëriñ ndax naxaate bi ak lu mënti doon ñun nag eh, yàlla nag moo mat ñun matuñ waaye nag dinañ fexe ba suñ kem kàttan ba képp ku ñuy jëflanteeg koo xam daf ñoo wóolu si suñuy si lu ñuy def gëm ñu si dañuy sant ay mbir pour ñu dimbalante si ak ñoom ñu mën see gis ay résultats te ñu bañ see mer te bañ leen see amel àq man képp ku ma nar a amal àq rek wala si lu mënti doon rek yàlla bu ma jëflante yow waaw dëgg la nag mbir mi yenn saay du ñàkk àq waaye ñu ngi koy moytu daal suñ kéem kattan ñu ngi koy moytu di leen wax ngeen tey ngeen dal nit bu nekkee si ay problème ay jafe-jafe dafay tey dal nekk na koo dégg rek dem sa wala lu ñëw rek nga demee si ak gumba tax du déedéet da ngeen def tey ngeen def ndànk ngeen tàlle seen loxo yi suñ borom di ko ñaan tey nag secret bu ma leen andil mu ngi jëm si wàllu suñu mbokk jigéen yi nga xam ne dañuy dañuy dañuy ëmb toll si diggante dégg nga te yenn saa yi ñu si bëri dañ leen di opération yi ñu siy ñàkk seen bakkan bari na kon nag fagaroo gën faju lii def leen ko jigéen ñi def leen ko góor ñi itam ku si am sa soxna wala nga am si sa jigéen nga fexe ko jëm ko defal lii nga xam ne si ni jëfewut lu yomb la àddina dañoo toll si àddina boo xam ne dafa jaxasoo seytaane yi rab yi jinne yi borom buti yi eh, ay yi borom làmmiñ yi ay kon nag foog ngeen di fagaru seen bopp dégg nga ni ngeen koy defee nii la yomb na da ngeen bind kun bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa tasliman su ko defee ngeen bind li nga gis si dëgg bi ngeen tëjee ko ak allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman dégg nga su paree da nga koy def téere nga takkal ko ki nga xam ne mu toll ci diggante moo xam mu nekk ci weeram moo xam itam mu wan loolu rek su ko defee mën nga koo takkal ngeen bàyyi ko xel te ngeen fas yéene di ko def bu leen ko négliger bu leen ko ndax nekkul lu ndaw lu rëy la loo xam ne lu rëy la kon nag fas yéene leen ngeen koy def yéen góor ñi mën ko defal seen jabar yi yéen jigéen ñi itam defal leen ko seen bopp bu leen xaar kenn di leen ko defal bu ngeen ko gisee nii fexe leen ut ku leen ko liggéeyal liggéey bu sell bu jaar yoon mu defala leen ko beneen bu ci topp muy loo xam ne si nii lu naturel la dégg nga mu nekk lu loo xam ne jëfutu am muy reenu tomate reenu tomate moo nekk nii moom tam da ngeen koy ut mais bu ngeen ko utee da ngeen koy takk seen bopp ki nga xam ne moo toll si weeram moom si boppam la koy takk yeneen a xam noo leen defaree reen bi mais si boppam la koy takk te jigéen ñi itam ngeen muuru jigéen tolle si diggante day muuru lii boo ko teggee sa bopp ba pare da ngay muuru wala ngeen def loolu noonu ngeen def seen bopp yi noonu genre musóor la ngeen def ko seen bopp yi mu koy mën a couvrir su ko defee incha allah rabbi tànk mi ngi si yow rek ak kër bi mu leen wax yàlla mën naa def tawféex mën naa def jàmm ba ngeen mucc yàlla mooy muccal yàlla mooy dimbale yeneen yàlla dimbale yeneen yàlla muccal dégg nga kon nag loolu la ngeen fas yéene ko bàyyi xel te nga xam ne àddina yëpp euh, fagaru la nit ki nga sa bopp def sa bopp li nga war a def sa bopp di si des na nga bàyyi ko yàlla suñu borom moom mi nga xam ne dara tëw ko moom mi nga xam ne lu am moom la am na yoo xam ne mbiru yàlla la nag su ñëwee dëggula yàlla dañ koy bàyyi yàlla mais am na yoo xam ne nag moom daanaka euh, yéen ma gën a xam daal ne àddina dafa di kon nag ku si nekk daal na jóg si boppam euh, tey loolu laa leen indiloon incha allah ñu ngi leen di jox dig daje ba suba ak jàmm ci beneen secret ñu ngi leen di ñaanal jàmm di sàkk ngeen ñaanal ko ñaanal ñu ko yàlla def tawféex def tayseer incha allahu taala kon ñu ngi yem fii di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah wa